Euh, VIP Pod point com dikkaat euh, ak seen euh, émission seen star tey nag ñoo ngi jàkkaarloo ak sunu benn xarit si sa binta bu rajo Top FM Dakar animatrice la di fi def émission di fi def lu am solo mm-hmm. muy am nag événement bu mag boo xamante ni à ne pas manquer tey moom na jàkkaarlool pour waxtaan ak moom si lu jëm si émission bi nga xam ne ma ngi koy def. euh, ak lu jëm si euh, en tant que métier mi nekk uh, animatrice nekk uh, présentatrice ay événement yoo xamante yu mag sénégal gi di def def ay déplacement si région yeeg yooyu euh, binta ñoo ngi lay nuyu maa ngi lay fay uh, dili di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel di setan photo lu vip people.com di nuyu ñëpp Euh, Sister Binta euh, tey nag euh, ñëw nañ fi nga xamanteni moy sa sa rajo mhm. di Top FM Dakar mu nekk ngay def émission bo xamanteni ni nit ñu bari apprécier nañ ko émission bi ndax mën nga ñoo wax début bi ak turu émission bi nan nga ko créer d'accord donc début bi dama ñëw ci biir Top FM ma fekk fi déjà turu émission bi mhm. Top Karaoké lañ ko tuddee donc maanaam bu ngeen déggee loolu euh, auditeurs ligne ñooy woote euh, wayal ko Bob, bopp di way ci émission bi Diapisé man je me suis dit que dëkk bi metti na metti bo xam ni nit ñi duñu jël seen xaalis juste woote pour di way donc man ak sama staff ak sama manager on s'est dit pourquoi pas ñu York ci parce que nit mun nga fekk dara mais mun nga ci yokk sa ay plus foofu nag la ñu idée bi di invité chaque samedi ben artiste artiste bi toog way auditeurs dit, on bu la neexee continue dugg way donc ci laa ko tuddee top karaoke yokk ci plus mu nekk top karaoke plus. waaw euh, kon yow euh, su ma déggee sax mooy si biir émission bi euh, top karaoke plus est-ce que tey jàppoo ne ay artistes mën nañ si ndax am na ñoo xamante ne dañu toog seen kër am inspiration mais léeg-léeg duñu am fu ñu ko waxee. mais bu ñu amee nag euh, opportunité boo xam ne mën nañ di woote sa émission di faral di yooyu ndax tamit loolu du gën a ñaax euh, xale yi ngir ñu gën a mën a am inspiration ak ñu gën a mën a dugg si si milieu bi. mais jili loolu euh, dama ci dama ci bëgg tontu bu baax parce que ñu bëri dañ ci génn macha allah donc. man nee man Binta suma ma ci dara té amul évolution je préfère ma baye donc di def rajo 3 ans té awma sax ben artiste bo xamné ne sama émission wala bok man Siste Binta mën na ni top karaoke plus ma ko lolu bari na artiste yu bari macha allah tey yuñ fi dégg sama émission jappal na leen bu baax a baax ci sen carrière ak. Euh, ci li ñuy def ba tey jii ñu ngi leen di ràññee fu nekk di leen dégg fépp. Euh, damay gis ci ngay invité tamit euh, ñi ñuy wax ne ay talent caché. Mhm. mu ñoo xamante ni macha allah dañuy man woy mhm. mais en général. Euh, yeneen yeneen télé yi wala yeneen rajo yi duñ leen faral di leen invité yow nga leen di invité tudde leen les talents cachés lan nga si jublu. man talent caché booy seet ñoo ma gën a intéressé ji li ma ci jublu mooy dañuy seet rek waxtaan tey tegal ñaari émission koo xam dafa siiw bu baax ak koo xam ne siiwul kenn xamu à chaque fois di nga gis ni ki ki siiwul ki kenn xamul mooy gën a intéressant foofu que ki nga xam ne xam nañ ko parce que ki nga xam ne siiwul boo ko jàppalee tuuti ji li am na lu bëri lu nekk ci moom boo ko génnee dafay dem par force donc man je pense que euh, tey jii euh, nekk artiste te mënoo fësal sa bopp amul lu ko gën a métti donc man mun naa wax ni Sista Binta ñi nga xam ne kenn xamu leen man ñun ñoo ma gën a intéressé en ce moment te li ma ci jublu rek mooy euh, jàppale leen. Mhm. ndax fii ku fi dem dañ la buux comme ni ñu koy ah. waxee. Euh, mais tamit euh, gis nañ sa biir émission bi tamit ndax tey am na benn maanaam ndax dina am léeg-léeg ay leçon de morale yoo xamante ni tey di ko faral di di lancer waale si biir si biir émission bi. <laughs> waaw ji loolu moom ci laa dëkk parce que c'est vrai que duma mag trop mais n'empêche nek na ndaw bo xamni amna jar jar té jaar te yàgg di toog ci ay milieu mag di waxtan ak ñom donc des fois bo gissé sax euh, sama première partie musicale dama jàllale ay messages pour les jeunes pour les enfants parce que xale surtout ak aussi pour les prisonniers man bàyyiwuma ken. donc à chaque fois que amna opportunité def ko dama jàllale message parce que loolu ah, bah, léegi yow ci euh, biir émission bi tay euh, nan nga jappé né tay yow man nga participer euh, si développement euh, Sénégal mais surtout si côté culture bi. côté culture donc li ma ci jappé dina bëri parce que je pense que gis ko xamni ken xamuko mu nek ko mun limuy def nek ci roqam nga génn ko fessel ko loolu rek je pense que c'est un grand apport mais itam ñi nga xuus chaque année bo seetee euh, ñi ngi indi ay yokkute ci émission bi chaque année ñi ngi rénover di innover wat émission bi pour manam ku ci nek mun ci gëna sentir sa bop té je pense que année bi y' a pas mal de surprises yo xamné jili euh, ñi ngi koy wajjat te di ngeen ci tek seen bët inshallah du yag dara. Euh, émission bi ba nga ko commencé ak légui ñaata at la. waaw donc le 27 septembre bi incha allah lay fëte samay 3 ans radio, incha donc mun ni septembre bi dugg naa ci samay 3 ans radio, ma kontaan ci nag torop torop. Il y a dog di fêtes, euh, chaque année Oui, mais boo c'est féete bi ko daan évolution de la li wax day je pense que le match ci étape parce que première année ko studio. Mm-hmm. Bobo ñi lay xam de mm-hmm. studio invité ay artistes deuxième année ñu ngi demoon Gorée yang fa yow donc deuxième année ñu ngi ko on mais nekkul soirée dafa nekk soirée boo xam ni ñoom di Joe ñoo def seen événement def seen publicité man dama ñëw rek yokku ci jaay ay prévente y avait juste mon nom dans l'affiche mais année bi dama jëlal sama bopp en main avec mon manager et mon staff donc ce qui veut dire ñoo créé suñu événement bopp mettre en place lépp lépp sama staff sama manager ak man ñu ko pour un événement boo xam c'est carrément inédit c'est du jamais vu à Dakar. Euh, euh, ndax mën nga ñu rappeler date bi. c'est le 27 septembre inchallah. Euh, fan nga koy féetee. maa ngi koy féetewee euh, Blue Saxo Blue Saxo nag euh, mi ngi nekk rond-point Yoff en face Brioche Dorée bi boo egsi ci Brioche ñoo jàkkaarloo te itam maa ngi lay invité waale le 28 septembre am na benn match bu rëy bu ñuy def comme chaque at ni ñu koy defee artiste contre auditeur ak DJ. donc yo euh, xamna ni sorte moom dina la euh légui euh, ñu wax ci euh, événement bobu le 27 septembre ndax timen amna na xamanteni tay ñom nga ko tuddé genre démé noonu. bien sûr donc pareil bari nañu marraines bari nañu crow aussi bari nañu parce que jii man sama événement bi dama ci jànge lu bari li ñuy wax naan nga am nit mo gën nga am xaliss man firleel naa ko ci sama ci sama bopp. Euh, ci sama événement bi parce que loo xam ni loo jóg rek ni lii nga gis nit xalaat na ko pour jàppale la ci ñëw ni xaaral ma def ko nit koo xam ne dalay dawal di la sonal te fekk na booba xamoo ko fekk na booba defaloo ko dara donc euh, événement bi daal ji li euh, ci loxo yàlla la nekk daal. léegi ndax dina am ay artistes yoo xamante ni tey danañu si ñëw ndax daaw gisoon nañu. Euh, bi nga koy feetee gore gisoon nañ fi artistes yoo xamante ni ñëwoon nañ. Mm-hmm. wayal la fa def am solo ndax ren tamit yaa ngi prévoir euh, tey euh, yeneen artistes yoo xamante ni danañu gën a yokk si mbir mi. mais bien sûr donc euh, artiste dina ñëw parce que man ak c'est une très longue histoire maag ben benn lañu comme ni ma koy waxee maag ñoom sans man ñoom duñu dem sans ñoom itam man mënuma dem ak sama émission donc tey ji euh, ay artistes yu mag am naa fi macha allah ñu mun def yu baax euh, way ak baat yu neex ku ci Flow dina fi nekk ku ci Babel Kila kuma ma xam-xam ni ñoom samay nit lañu ku ci mel ni Rosso année bi dina ñëw bokk ci labi dina ci bokk waa Dables wa gis ak lahat express ak yeneen yeneen i artistes yoo xam ni kenn xaarul système biñ ñu da nga dégg événement bay jël sa téléphone daal di ni dama bëgg indi sama participation par force donc man artiste yi awma sen fay vraiment mhm. Euh, léegi ban message euh, bo xamanteni tay ak fi Sénégal toll euh, message bo xamanteni ding ko lancer mu jëm ci artistes yi mo xam ci jeunesse bi mo xam sax ci président de la république en tant que événement bu toll noonu ak tay fi nga toll ci sa walu jang ak yoyu nga nek ko xamanteni so soo waxee danañu la déglu ban message bo xamanteni japp nga ne ding ko lancer jour anniversaire bi. wa man dal jili comme limay wax tout le temps man dama ni dama bëgg ñu and ak dal dañu and ak dal parce que dal ak jam, ci xej donc nañu gi ñu parce que bo dalé des problème bu di a régler Jam, su di am di nga tal def parce que jam, bu amul tal organiser ay ay événement ba def kon am suñu ak artiste suñu ak suñu ay directeur suñu entre collègues qui waral tay ñu ñu oser di ci événement tey bu jàmm boobu am woon boo tegee kenn du la wuy si kon pas la nga def événement dal itam dafa baax ci nit dañ ko dañ koy wax ci ndox mi ci nit lu gën a baax comme par exemple tey ñu fi doon dégg benn feebar Ebola ñëpp paniqué tey boo paniqué yaakaar naa ni côté ba nga jëm sax mun naa am ni foofu la mal ba nekk donc ni da ngay da ngay dal ba pare euh, nga àndax jàmm ju bëri euh, daal di koy séddale fépp foo nekk. te je pense que loolu boo ko defee euh, ca kanam la jëm incha allah. Euh, par rapport ak euh, fi ngay liggéeyee Top FM. Mhm. tey nan nga si woowee ñi nga xamante ni tey say collègue lañ wala sax ñi nga xam ne say say directeur lañ. yii man ak ñoom nag lu doy waar lu doy waar la ndax yaakaar naa ni kër gi kër gi benn la te man ak samay collègues surtout dañoo déggoo surtout sama góor yi ak sama jigéen ñi dama leen yëpp macha allah donc ku ci nekk tey jii. Euh, yaa ngi jéem indi sa participation ñi ñi ngi naan animation bu ñoo yor jigéen ñi di defar ay flyers ñi di joxe ñi naan voice yi def donc ku ci nekk am nga yéene bo xamni euh jaaxal na ma man sut na sama njort te itam kenn xaaru siste ta wala man loolu ma ci gëna marqué ku ci nekk da nga dégg événement bi rek ñew tel jour bi may def lii tel jour may def lii donc dañ ko pàccoo dafa mel ni événement bi euh, Top FM dal moko organiser loolu la niru samay directeur nak ñu yombalal ma lool affaire ndax euh, je pense que ba ci spot publicitaire bi nga xam ne moo tiital képp kuy def événement fayuma ko sama directeur moo ma ni fii ba sa événement di egsi da ngay def sa spot gratuitement doo fay dara ci biir kër gi ñoom itam ku ci nekk indi sa participation donc jàmm daal ci la lépp xaj te alhamdulilah yàlla na jëm kaw. Euh, léegi nag vipeoples point com ñoom loo leen di wax xanaa di bég ci waa vip people vraiment damay bég ci parce que dama leen di suivre man dama leen di topp ndax euh, nee nañu net dafa am importance internet tey jii melu comme avant nga xam ne boo yeewoo force da ngay taal sa télé wala force nga daw dindi journal tey jii mën nga toog sa kër xëcc sa téléphone wala sa iPad nga connecté mais VIP people seen article neex na ma ba pare itam seen revue de presse surtout man moo may rey non mais doy na waar ah. mais yow li ngay publier est yaa ngi koy gis man tam ma laajte la yenn saa yi jili baxtaat li ngay wax ci artistes yi doo tiit. <laughs> tey may laaj. te nga bàyyi ma laajte la rek. tey may laaj tey may laaj. yéen yi doo tiit en tout cas.

Merci beaucoup, Gilles.